ay Aïcha mu ngoog li gën a fës ci miroir régional tey daf ñuy yóbbu ba Kédougou foofee nag ñu fekk fa Ibrahima Diabakhate fas yéene waxtaanee élection locale ak dàq gi nga xam ne dañu koy euh, dàq le collectivité locale yi nag saa su ne ñu ngi ci yëkkati seen euh, kàddu rawatina ci wëyal googu nga xamante ni si dañuy wëyal mandat élus yi tey nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllu société civile di taxawal askan wi di leen tubayul nee nañu fi mu nekk ni naam dàq mën naa am waaye nañu yore woon koppare nañu yore woon kër yooyu lee il faut ñu leeral ko balaa ñuy sori ci gëstu bi dañuy ànd ak Ibrahima Diabaxate ñenn ci conseil départementaux yi ñu benn yokkute mandat élu yi ci boppu mairie ak ci conseil départementaux yi ba tax na sax ñu ngi ñaax nguur gi ñu amal ay audit ci biir collectivité yi. nga nekk conseil sa mandat jeex nga war a yokkaat encore mandat boobu loolu bon parce que ñun daal gisuñu daal euh, vraiment loolu euh, jaarul daal parce que normalement mandat yi jeex nañ ñu war a arrêté parce que sax moo tax ba problème yi gën a am tey parce que ñi fi ñiy jiite euh, peut-être que am na ñoo xamante ne nekkuñu di réaliser euh, réaliser yu baax réalisation yu baax xëy na peut-être population bi euh, population bi yàkkamti nañ ñu dem donc ñooñu bu ñu fi desee ba léegi te nekkuñu di réaliser loolu mën naa indi ay gàllankoor yu bëri donc ci doxalin na euh, dëkk bi donc man gestion boo gis daal dafa war a am audit dans le noms parce que ñi fi nekk jox nañ ay budget gérer nañ ay budget donc budget yooyu dañu war a vraiment war nañu seetu xam donte sax am nañu prolongation par décret présidentiel pour ñu continuer di gérer mairie yi waaye am na ñu ay mission de contrôle ak ay audit ñi leen di gunge. am na euh, chaque année ay mission de contrôle d' audit ñëw yoo xamante ne dañuy auditer li nga defa financement yi def ndaa réaliser ko wala réaliser ko wala fan nga toll ci état réalisation bi ñun loolu c' naturel parce que état du Sénégal am na organisation boo xamante ne. loolu euh, du du lu bees du lu euh, du loo xamante ne nit mooy taxaw fale wax ko état après état di ko état am na organisation bu mot sëkk am na organisation boo xamante ne nit soxla wax état mu audité programme parce que chaque année chaque programme am na euh, day ànd ak mission d' audit de contrôle programme bu état créé rek. ànd nag ak mission d'audit ak contrôle. lan ci li maire yi war a gën a faratal mooy waxtaan ak askan wi ci yoronu maire yi. auditeurs bi est-ce que état bi dina mën a auditer ñëpp c'est que en réalité moi je pense que waruñu xaar sax ba état di bi waaw néew naa la koo xam si moom vraiment dem nga ba am confiance population yi yooyu yaa war a ñaan c'est que chaque fois nga naan vraiment nga def ay séance de redevabilité nga woo askan wi nga expliquer leen vraiment li ñu la dénk li ñu la jot dénk. loo xam si nii nii nga ko utiliser je pense que ça c'est même un plus ñoo xam si moom c'est des maires méritants ñoom ñoom seen jëm bopp ñoo ko war a ko a ñaan c'est-à-dire réalité bu ñu jëlee ay eh, ban cabinet d'outil la ñuy def xanaa bu ñu dem en certainement dañu naan non ñii dañu dañoo créer benn benn cabinet boo xam si moom c'est pour vraiment absoudre vraiment ñi fi nekk daal concernant kii moo tax ma ne la mbir mi yëpp ay problème politique la dañuy jël en otage vraiment muy muy parti au pouvoir muy parti d'opposition en vérité waroon nañu vraiment dépasser loolu nekk ci développement fu mu nekk nii ñi bëri yaakaar nañu ne ay reddition des comptes ci diir bi ñu yokk ci mandat maire yi ak président conseil départementaux yi. ayca Ibrahima jërëjëf di la jaajëfal naka noonu di euh, nuyu waa Kédougou ginnaaw miroir régional ñu xuus ci rubrique société fasciné ci ànd ak Maimouna Ndiaye.